ñoom jëluñu ko noonu philosophiquement rek lañ koy jëlee parce que nit moom dèjà tawatoon na moom tawatoon na tëdd mais aussi fenêtre am xam dafa féete mbedd bi si ginnaaw di sànnee si fu lacrymogène yi amee ñun ba suñu biir nekk lacrymogène yi daf mais dañ ko jël transporté ko si sama néegu sœur bi fee mu gën a aéré mais après trente minutes rek yàlla def li gën mais mënuñu méngale ne lacrymogène yi moo tax moo indi loolu déedéet dañuy gëm yàlla rek xam ne yàlla moom lu mu bëgg a def ah waxtu ba mu koy defee ah nu mu koy defee rek la koy defee nit moom si dara sant yàlla rek la ñuy nekkaat si ñun sant rek.